asalaamualeykum waa senegaal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziaraat bu baax di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di ñaan ñépp ñi nga xam te ni jóg nañ pour dem ci appelu Yoff bi yàlla yóbbu leen ci jàmm delloowaat leen ci jàmm tey ñaan yàlla sotti jàmm ci senegaal gépp nangu ñaaneñ fa ñaan def koy xéwal sotti ko ci àdduna bépp ba kenn ku ne mën ci jariñu tey waa lu xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo mu doon benn réaction bu sunu benn frère am ci série maîtresse d'un homme moom nag ci cadre Jalika ak Biram lay waxe maanaam ni nga xamante ni si moom la Biram di maltraité Jalika je peux dire donc wolofam bi dese na leer mais yaakaar naa ku dégg li muy wax di nga comprendre kon ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xamante ne si moom la jot waxtaan ak ñun. asalaamaaleykum na ngeen def yéen a ngi si jàmm alhamdulilah man nag sama wolof nag leerul bon dama gis euh, ci YouTube bi après benn euh, Jalika benn théâtre tout le temps man dama koy dama damay dama koy seetaan nag musuma rate ci boobu nag depuis première bi jusqu'à ci début bi maa ngi koy xool li may xoolee ci di kii nii vraiment jëkkër bi moom kii euh, moom lu muy defante ak jabar ak Jalika nii franchement dafa métti dafa métti métti métti métti en en tout cas euh, Jalika dafa muñ moom day dem liggéey xëy en fait comme li nga wax léegi euh, li li nga wax pour gis-gis nit yi bon Jalika dafa góorgóorlu nag day dem liggéey defal xale école defal tout ça defal def ko def ko kii jëkkër bi moom day génn rek. moom lu may dem ni lu may def vraiment en fait Jalika gis na ko day muñ boo defa am fort nag dafa am fort boo léegi nag moom sonn na jëkkër bi moom lu mu def lu mu lu mu koy def ni vraiment defa métti c'est trop ëpp na en fait yaayam kii encore jokku ko euh, euh, moom di euh, kii jokku dara ci pour affaire ay jàmm ci kër gi bi day togg day def tout ça après voilà indil ko gis naa même palaat benn palaat après indil ko jusqu'à côté am ak tout ça après voilà euh, kii yaayu kii euh, xoolu ko ni après voilà saaga ko def ko tout ça bon vraiment en fait euh, kii moom mu ngi dox rek génne tout le temps moom bu ñëwee vraiment Jalika baal ma tout le temps moom mu ngi def noonu une fois deux fois trois fois quatre fois bon moom sonn na en fait léegi nag même moom li ñu wax dëgg la même xale be benn dafa am benn xale bu xale bu ndaw bii nii moom dafa ànd ak yaayam en fait moom gis na kii moom lu may def euh, pap bi moom lu may gis euh, yaay bi xale bu jigéen bi bu ndaw bii nii dafa ànd ak yaayam en fait moom lu muy def pap bi moom lu muy def yaay bi dafa métti vraiment jigéen kenn ku torokal nag théâtre la de pour justement nit yi yeew dégg la boo muñee après wala sa jëkkër moom mu ngi lay def bu bon lu mu lay def après sonal la ah laa de si mio tan moom jëlikaa moom lu may def ni moom mu dem jëkkër bi gis euh, for moom lu may def ni c'est trop tard c'est trop tard moom mu defoon na avant bu defoon avant moom def na même même avant moom def na ci pour affaire tout le temps moom mu ngi indiwaat que encore problème tout le temps moom mu ngi indiwaat problème euh, day ñëw après voilà yóbbu benn euh, jour xale yi xale yi ci école après voilà ñëw nag ko après voilà euh, reetaan ak moom tuuti après voilà encore demee moom mu dem que encore def que pire lii ëpp na vraiment lii ëpp na pour man man su ma gis bi gis-gis bi ni après léegi nag Jalika moom lu mu lu mu lu mu ñaanee baatam bi ni après voilà moom mu dem mu dem sëy beneen jëkkër bi gis gis moom bu moom après moom mu gis loolu bu gisee ci pour affaire yeneen yi nii même man nii man nii su ma gisee ci pour affaire yi ma ne ah vraiment ndaw si bii de sonn na vraiment jigéen bi moo jabar bi sonn na man de léegi nii man man li mu gis ci théâtre ba ni man man ci man léegi ni man man ma dégg naa gis naa ko daal dégg naa affaire bi lu mu mel nii daal avant boobu man dama damay jàpp sama jabar nag avant boobu kii kii ñëw théâtre la nag ñoom lu may def nii pour yeewal nit yi dégg la kon la si miyo rek après voilà moom lu mu ñaan baatam bi nii la pour après moom mu jox ko beneen sens non c'est trop presque jog na ko ñett quatre fois si mieux rek après ñoom mu séparé après mu dem si beneen mooy moom bu demee fale après walaa jëkkëram jàpp ko bu mu baax normal après voilà sëy ko sëy ko ak kii voilà si mieux doom doom yi bu màggee rek après voilà dina ñëwaat ñoom ñoo am ñoom ñaar doomam yi pour man man nag lu mu gis-gis ni affaire yi euh, nii la rek man pour man waaw léegi nag ngin baal ma nag sama olof bi leerul nag vraiment. théâtre bi neex na neex na ma nag neex na ma dama koy seetaan damay yërëm jëlikaa nag par tasantaam vraiment yërëm naa ko amul jàmm ci jëkkër bi amul jàmm ci yaay bi vraiment dafa sonn en fait dem liggéey par tasantaam moom moo dem euh, ci guddi dawal oto bi jeexal essence bi no vraiment <laughs> non gis naa théâtre bi nag gis naa ko nag am na yeneen man góor la de kon am na yeneen góor ne ñoom lu muy def jabaram ni vraiment baaxul baaxul nag kenn ku torakal jigéen nag vraiment am na yeneen théâtre avant ñoom ñu ngi def euh, euh, coowli coowli vraiment coowli coowli yi c'est très dama koy seetaan de ok merci beaucoup waay merci beaucoup. waaw Cheikh bi ñu ngi lay ziar bu baax yaa ngi ci d'accord dégg nañu baax li nga wax euh, jégalu nag dama xawoon a jàpp boobu ba léegi nag pare fàtte woon message bi dem tuggud laa koy door a dégluwaat. gis nañ bu baax li nga wax léegi lii da nga bëggoon ñu jàllale ko wala da nga ñëw doon wax nii rek. Euh, waaw damaa bëggee affaire bii nga jàllale eh, waaye jàllal ko jàllal ko la affaire bi dafa am solo nag billahi dafa am solo nga ci am yeneen góor gis nga ndaw si bii kii am na benn waa ji benn ndaw si moom dafa wax léegi nag même moom noonu la dundee ak jëkkëram gis nga am na yeneen am na yeneen am na yeneen sëy vraiment am na yeneen sëy dafa métti en fait ñun. waa Europe yi nii ñun defu tukki ku tukki day am xel ku tukki rek day am xel nag day day xam tout day gis day gis lu métti day gis lu daal lu lu kii rek voilà léegi nag ñun nag vraiment vraiment affaire bi affaire bi day yeewal nit yi day yeewal nit yi franchement jigéen boo ko jigéen yërëm ko jigéen presque ay xale la dindi naa euh, euh, kii affaire yaay yi nag dindi naa ci pour affaire ay yaay nag voilà léegi nag vraiment affaire bi euh, théâtre yi ñoom lu may def ni vraiment c'est très bien en tout cas Jalika man kam pour man kam il faut moom pour man moom mu séparé ak birom birom pour birom mu xam affaire bi lu mu mel yeneen yi bu gisee ki encore bi bu gisee ci pour affaire yooyu voilà ñoom ñu ngi wax ah en tout cas vraiment lii Jalika de moom ay góorgóor dafa góorgóorlu nag ndeysaan dafa def tout ça après wala liggéey def tout après wala def fort ñëw togg gorom bi ki encore mayu ko jàmm non vraiment moom sonn na en fait tout le temps ah, biram moom mu ngi koy wax léegi ni wala baal ma euh, léegi nag man du ma defaat du ma def affaire moom bu génnee rek dem ko encore eh damay seetaan théâtre bi de wallahi dama koy seetaan nag dama koy seetaan bien bien bien vraiment Jalika euh, euh, moom kay jigéen la nag vraiment moom dafa góorgóorlu nag léegi nag moom sonn na moom même papam bu wakkee après wala euh, sëy bi moom mu nekk ak tante bi ak yaayam bi moom du d'accord pour man man maa ngi maa ngi ci côté Jalika pour après wala affaire bi séparé déggal moom lu mu wax même sa sa papa moo ko forcé man bugguma woon xoolal loolu laaka yi ñoom mu yem fii rek muy yem fi am na yeneen góor am na yeneen ku ku yeneen yi ku tukki ku nekk ci ci biir Ndakaaru ku nekk par fu ne kuy seetaan affaire bi day yeew bu gisee ci biir affaire yi rek après voilà voilà sa jabar moom lu mu def def def def danga koy noppi nga noppi rek après voilà nga baña a ko non vraiment la kontaan waaye jàllal ko jàllal ko <laughs> donc chers internautes gannaaw ba ngeen dégloo li nga xam ni moom la waxtaan ak ñun kenn ku ne loo ci xalaat mën nga ñu ko bàyyil ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci sunu numéro WhatsApp di tuubaat encore une fois di jéggalu ñépp bépp vidéo bu ñu mus a def lépp lu luñ ci wax rek ku mu laal ñu ngi lay jéggalu parce que li ñu bëgg mooy jël suñu xalaat di ko partager ak yéen mais lépp ñu teg ko ci respect donc encore une fois ñi ngi tuubaat di jéggalu ñëpp wax ji lépp lu fi jub ngeen xam ni ndimbalu borom bi la te lépp lu dëng ngeen xam ne ci man mii di wax la di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah